ya di ekor bisa gimana? Kan kan apa kayak ekor gimana? Jangan sampai ya. Cak mau terapkan. Ada mau nih? Mau lucu aja. Ah. Wah, wow. sewaj mom. Fumi je bakar ini mana? Mau kau satu kau beli gitu? Bakar ini bisa warna ini mana? Ah. Wow. Ah, lu melawak cuma? Nih nama deh. Bye bye ini jayam lah. Bye bye ini jual ini jaya salah tengah nana. Wow. Nih ini jayam lah deh. nee na daal keroog action bi nu mu demee moo tax ñu fa woon nekk dañuy expliqué. baax na man de Baye Faye Baye Faye de li mu li mu def keroog du fekkoon ne xamul Bakary ba li mu wax du dëgg kon du ko jaral li mu ko jaral ñëw ba ci àgg si ko ba fii ah kon du ko kon du ko defee noonu waaye nag beeboo nga def ndànk ci Bakary ndax man Bakary tey sama xel de. tey na sama xel torop waaw Baye Faye kay xam na Bakary waaye Bakary moom dafa ñëw kër Baye fay pour lijjanti këru parent wam yi ndax Baye fay kër gi mu nekk ñoom Bakary ñoo ko moom léegi nag kayitu kër gi la lijjanti si loolu moo tax mu toog fa loolu moo tax waaye moom daal nee na ca tool ba di bay ah, France la jógee en tout cas de Baye Faye moom li mu wax li mu defee keroog man dafa tey sama xel depuis boobu ba léegi nag Bakary dafa tey sama xel bu yeboo nag nga bàyyi xel bu baax ci li ma la wax def ci Bakary très attention parce que Bakary man tey na sama xel torop am na lu ci luus de li ma la wax nii nag waxi mag laa la wax am na lu lee am na lu luus lu ci nekk. waaw baax na waaw na nga bàyyi xel lool rek. baax na lu si mënti am dinañ ko xam. waaw baax na. Mãe, eu si kanam. waaw baax na como é que tëdd ku may seet maa ngi ci tey moom xaar nga ne yor. ñun dañoo yàgg yoo. waaw man damaa xam ne bu doogul apa ba tey. tey sa nijaay daa participé moo tax. sama mut a participé. waaw léegi loo ma ciy waxee loolu di ma xas. du ma la ko wax. mbaa nag tey laa gis ku ma yërëm. foo yërëm yow. benn waaye di jaay ay yëre. parce que yàlla xam ne leen génn place léegi. wala te yëre xam fa la ko wér ci ah Ndumbe. Mbacke bi ci yor koor nga nekk def. Ayo Ndumbe lu mel ana jën moom ah ñëw bi ah ah kii sam nañ baax ah kàll ah nu mbe ah, kay jëkk tàkk ni nga def mm-hmm. ah, ah lu mel ah, mburu bi moom rafet na di eh mburu mu rafet seen newu ci sa gàtta bi nga li ngolo kante noppi kii daa participé tey nga la fan yow ndogalu ba mu commencé ba tey weeru koor gi chaque jour kii la ñuy ndogoo ya, tey daa participé moo tax mu ngi xaw a baax hmm? Ah. waxal waxal ah, gisoo ndogal nu mu yàggee mbay bu nitu yàlla laa du def di wax hmm. ah, bu doo ci sax de boo doon sax sax mu mu mu gën neex waaye doo ci sax mbaa am nga café Touba hmm. café Touba am na wante taxawal hmm. tey de ba nga jéet ne dama doon saw waaw am ñu ma doon ñëw si suuf taal ci kër gi fii kër gi fii xaw ma ne kan la ah man am na ko ba sonn mu ne am na benn paa ma gis fee te ñun ñoo fi nekk kër gi ñun rek ñoo fi nekk boo fi génnee ñaar ñi ñoo fi des. ah man moom est man fi la ma fekk. ah wóoruma de xaw loo war a wax. ah man diya damay fekkee yow la yow moom xam naa ne waroo maa yéen. non jamais jamais sax ko yéen. man ba ma taxawee fële daal gis naa benn paa bu sol ñuul ak mbaxana ba. mbaxana noir bala caay noir bala et lu pilet di di di fa yawa non avant may ñëw ci yow Baye Bakary dafa mel ni li nga wax dama cee santi sama bopp daal ndax su ma déggee nga ne yére bu noir mbaxale bu noir am lu balan kon mën ngay waxal ndax man daal dama mën <laughs> yéen ñaar daal en tout ñaar ne ko ci kër gi ak man euh, kon yéen kon yéen ma da ngeen sa ñaa sa ñaa wax sa ñaa wax yow booy sangu dumbe tëj sa bunt mi duus dumbe kan moo la war a ci kër gi ngeen may yëndu man daal ki ma doon yëndu dafa yëndu ba sëgg ba ci suuf koy oh, seen oh. boppam fa yow di ko joojee wax du du ma yërnu jabaru jàmbur nu mel. ah. du ma eh. yërnu jabaru jàmbur. Euh, euh, merci jërëjëf Faye yow. man yii kafe moo ko de sama jabar doon di ko yër. yow mii la eh, ma ne la noppi dinaa la lëkkal Faye sama jabar di sangu nga di ko yër foo ko teg. Euh, bàjjen ban ban kanam gu ñaax fayda laa la wan man ba war a yëndu kii gépp kanam nga wan yow fii laa ñëw fii ngay def sa yëndu kenn xamul amoo jabar takkoo dara nga ñëw fii di di di def dakasul noonu mooy sama jabar ni fii di sangu fay nga di ko yër foo ko teg weeru ko nga yënduwaat yàq say daal. Euh, jaay numbe. benn numbe laa la. ma dugaloon ci yënd bi ma këpp ko ndax nguur si. dafa nànk rek xam nga ma dugaloon ci yënd bi. Euh, numbe dama laa gént fii. wax la ko. numbe ngay dëgër dëgëru ko déglu rek ma bëggoon laa jox caaga bi soow. numbe ma far la bàyyi la ba ngay. sàmm déedéet toogal bul daw yaa ngi dégg. ma ne dinaa la yëndu. ma ci yow bàkk rek. way moom lu la waay def rek <laughs> anam anam waroon naa taxaw. lu mel wax naa la ba sonn yow booy sangu booy def lépp de de fagaru ay mboota na ci kër gi. war ngay sangu kii di xool sam naq. yow nijaay yow sax yow man dama la bëgg wax bee tax yow da ngaa ñàkk fay kër gi a jéem yow ah? bu soo yàlla bu fekkee da ko bëgg dinaa ko def man lii mënoon mu ko ndogwaale kii yër sam naq di di di xool sama karaw naq di naq bi. Oh. Oh. waaye fay gis na la mu la mu bëgg lu mu gis ko du la may jàmm sama ndox ko jabar fay gis na